amul magasin deret doomu aadama yi tànk ci basam may doomu aadama ni moom rek boo ko mayee nit bu fekkee sauvé na ci deret joojee sunu borom ne doomu aadama yëpp sauvé nga leen doomu aadama yëpp parce que annama ahya nas jami'an kon nag ak jaam yàlla bu mag a mag boo xam ne jaar na def jaar na di nag ci ni ko nit ñi wuy see ci am mbégte ci ni ñu hôpital bi gàttandoo di am mbégte ci ni ñu àndeek ñun di am ci commission sociale bi nga xam ne ñoo ne ci waaj wi ak yiñ bi nga xam ne ñoom lañ ko àndal ñaan borom bi yàlla nañ ci defal ndam te nangul na ko ndax jaamu yàlla ku mel nii bu ko yàlla nangul lu bare bare mën na ci am ndax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam toog na benn bi ci saaba yi ne leen diw de maa ko gis ci biir aljanna ji muy waaxu bi yëkkati garab bu saaba yi nag lu mu def diw ni meloon ci dëkk yi ni mu dëggoo ni mu nàng gaaw lu mu def mu ne daf benn branche bu wax fànq ci garab ci yoon bi mu xalaat ne bu fi bàyyi branche bi mu ci yoon bi dana gàllankoor ay nit mbaa mu jeexital leen mu teg ay bagages am àndale branche ba dem ñibbi ca la ko yàlla dugal aljanna donc loolu def koy def ngir nit kon nag nit koo xam ne ki dafa tànk ci deretam ak ni deret mel daal di koy may nit may nit yaa xam nag koo ko fay waaye bi nga ko mayee yow kenn du xam kuñ koy jox naa am yenn jigéen ju soxla ko ñu jox ko ko kon sauvé ko ba sauvé doom jox am de dugal këram mbégte ak dëkkëram loolu la solo la wala koo xam ne dafa accidenté ak si soxla deret te père de waa këram a koy xaar ñëpp a koy xaar sa deret jooja nga maye woon ci lan sàngam ñu jël ko jox ko kooka mu jóg di dem loolu ak ak ak ak bëri nañu donc ak jaamu yàlla lu bëri moo tax nu koy jéem a woote sax ñaan borom def ci barkeeg ndam ak taw bi jërë ngeen ci asalaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu sante yàlla jëm si yonent bi salaa alayhi sant suñuy ñaari waajur di sant Oustaz Alioune Sall bu baax a baax a baax moom mi ñu permettre ñu mën a yëngu tey bii si diine xam nga di taxawal lu mel nii tey journée don de sang avant nag maa ngi jégalu maa ngi présenté wu. man la soxna Fatou Diallo présidente relation extérieure bu Al Imran ak euh, présidente communication bu daara ji euh, nag dañ ko organisé woon don ressent comme ni ko ni ma jiitu waxee rek dañ ko daan organisé feeg si au sein du yooyu organisation bi du yomb moo tax dañu indi ko fii ci hôpital bi hôpital principal di ko fi defisee dimbali suñu mbokk jullit yi nga xamante ne macha allah soxla deret wax dëgg yàlla jullit jullit tey moo xam moo tax tey ñu taxaw taxawaay bii ni ànd ko suñu ustaas suñu sëriñ suñu kilifa di sant yàlla di sant bu baax li nga xamante ne wuyu si nañ tey ngir dund ci seen deret dimbali seen i mbokk jullit dimbali seen i mbokk doomu aadama yi nekk yi da soxla ko ñu ñaan yàlla suñu borom rek vidéo suñu koy organisé waat lan lañ yàlla dimbali ba euh, ñu mën ko organisé fi daan organisé waat feebar bi jeex fi ba jeex tàq macha allah ñu def ko rek ka daan defee ak fañ ka daan defee. ci turu association Alioune Ba ci turu Baye Fallou Sëñ Alioune yaay Fall yi nga xam te ñoom lañ dénk wàllu organisation ak sécurité ci Alioune Ba euh, tey ñu ñëwoon fii ci hôpital bi nga xam te ñooy wàllu doomu sang bi association Alioune Ba ànd ak ñoom pour euh, dañoo waxoon ni réew mi daa manqué deret ñoom ñu def geste bi mu ne la ànd ak Sëñ Alioune Sall ñu ngi ci hôpital bi organiser ànd ak waa hôpital pour fexe maximum ñu maye deret lu mu néew néew néew deux cent postes lañ bëgg ñu ngi koy organisé wax dëgg yàlla ne affaire baa ngi nit ñaa ngi ñëw doo ba euh, ñu ngi ñëw ñu ngi may daal am nañ yaakaar ne fi ne heure bi jotagum sore ko parce que midi mooy doo ko jot am nañ yaakaar xëy na balaa 14 heures bi ñu jox danañ am nombre ñu soxla incha allah rek di wax rek ñoo sa sant yàlla bu baax ci xéwal bi ñu defal mooy wér ba mën a dimbali sa mbokk yu wér soxla la waaw maa ngi wax na si turu Baye Fallou Sall Alioune Sall ak Yaay Fallou Sall Alioune yëpp ak association bi ak li ma jiitu ci Alimane muy commission organisation ak sécurité di jégal ci kàddu yi ndax ñàkk mën a wax ak waaye nag di wax ni ñëpp rek kontaan nañ ndaxte lii geste bi dafa dafa noobul ci bi dafa noobul salaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo maa ngi leen di nuyu man la Omar Dramé président commission de cellule bu Alimane nii aussi président groupe workshop Alimane euh, objectif bi suuf tey nii ñu tax fii ci hôpital principal bi moo nekkoon woote wuyu si woote bi nga xam ne suñu kilifa bi ñëwoon na def si kaw. ñu déggoon ko ci rajo yi ci réseaux sociaux yi fépp noonu mu nekkoon journée don de sang bi nga xam ne association Al Imran ñu ngi ko doon organisé tey fii ci hôpital principal alhamdulilah ñu jaajëfal ñi nga xam ne suba ba léegi ñëpp ñu ngi di ñëw di boobu ba léegi ñu ngi fi Oustaz Alioune Sall moom mooy kilifa gi gis nañ ne ñëw na fi ànd ak délégation bu am doole ñëw moom ci boppam moom mooy ay deret ak ñi mu àndal ñëpp nit ñi tamit ñu ngi ñëw di dem macha allah ñu ngi xam naa liñ ciy dolli rek mooy comme ni ko kilifa gi wax waxee oustaz mooy njëriñu maye deret xëy na duñ ci ñëwaat ci détail bi waaye nekk nañu am am solo tey tamit waa principal bi kontaan nañ ci trop ndax ñoom d'habitude ci nañ li jafe woon na leen trop trop trop trop kon encore ñu ngi remercier képp koo xam ne ñëw nga fi pour maye si deret ci turu Ali Imran ak képp koo xam ne amoon nga yéenee ñëw te am gàllankoor ñëw yéene bi yàlla na ko borom bi fayee ñëpp dafa nekk ñëpp incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatulah taala association Ali Imran euh, ñu di nuyu euh, sant di leen gërëm doon del soit tey rek euh, di fëddaliwaat suñu engagement ak suñu déroulement programme ci biir Ali Imran tey nag nekkoon journée bi nga xam ne dañ ko jagleloon don de sang ñu lëkkaloo woon ci ak association sénégalaise des volontaires du sang fii ci principal Euh, tey samedi 13 juin 2020 ñu ñëwoon àndoon ak sunu oustaz oustaz Alioune Sall pour joxe benn ponk bu am solo ci lislaam mooy maye deret tey alhamdulilah jullit yi mbokk yi wuyu si woon nañu ñëw nañu may nañ deret vraiment hôpital principal am nañ ay poches de sang yu bari bari bari macha allah donc mu nekk vraiment loo xam ni euh, sama tur ak turu Alioune yëpp. Euh, laa ñëwoon pour remercier leen sant leen gërëm leen ci baax te mu nekk loo xam ni comme ni nga ko waxee rek suñu commission sociale bi nga xam ni mooy yor euh, wàllu woowu ñu ci liggéey def liggéey bu am solo euh, ñu koy continuer incha allah bi à chaque fois rek programme Ali Imran tombeek ak benn xew-xew automatiquement incha allah ñu mën ko joxe mën ko def comme ni mu waree. bi nag particularité bi mooy que ni xam ngeen ni don de sang yi kon à chaque fois fële suñu daara daara cub wala siège Alimran mais euh, xam ngeen jamono ji ñun fi mu toll ak mbas mi nga xam ne moo fi nekk moo tax tey ji ñëpp ñu dajaloo ñëw hôpital principal euh, ñoom am nañu ay ay euh, mesures yi nga xam ni ñoom la ñu mën a def foo xam ni dañu mën a maye sang ci anam yu mucc ayib macha allah donc moo taxoon tey ñu ñëw dajale tey fii ci hôpital principal pour mën a def tey don de sang loolu daal laa ne woon naa ko ci yokku incha allah rabbi ñaanal ñëpp nag yàlla na nekk lu gën si ñun yàlla na képp ku may tere rek suñu borom euh, ubbil ko àjjana fi ndaw incha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah. suñu président Atou Dieye nekk ak euh, oustaz Alioune Sall gin di ko jox benn diplôme maanaam mandat benn lijaasa ci taxawaay bu rafet bu mu taxaw ci bés bi nga xam ni moom mooy mandargale journée mondiale don de sang le 14 lay doon ñu xamee ko noonu waaye tey yàlla dafa dogal lu muy dogal lay tombe dimanche moo tax ñu def ko tey anticipé ko samedi di ñaan yàlla may ñu wér ak wér diisaayu poos wér gi yaram wér gi poos comme ni ko oustaz di waxee yàlla defal sa bopp ñu suñu dëkk moom sans concours kii mooy chef département Yankhoba Diop kon la Yankhoba Diop jërëjëf ñun tam ni ngeen ñëw recevoir rek ñu ngi gàttandoo mën nañ ko bëgg a def te mu jafe waaye macha allah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf waaw ah, waaw waaw nga joxe bi merci alaaji amin amin amin amiin waay loolu jar na wax amiin fegal salaamaaleykum waaw maa ngi maa ngi dem bàyyi fi gars yi continué waaw kon ni ko wattam nag incha allah ko def wattam waaw ana waaw maa ngi lay waaw waaw foofu foofu foofu lañ bëgg ah macha allah waaw. kon nag benn benn waaw waaw waaw dëgg la dëgg la. waaw ah wax dëgg loolu ci laaj bi waaw. boo xam ne ñun ñoo defal leen. ñu laaj laaj benn benn donc ñu jaay baax na maa ngi leen di bàyyi xel. salaamaaleykum jërëjëf.

yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi am na foo xam ne boo fa cliquer incha allah danga nga mën a abonné